bokk yu tedd yi jàkkaarloo ak ñun ci biir réew mi ak ci biti réew mi te taamu la chaîne leader la Sen TV nu ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu amaan mbégte ni ñu koy defee ba ñu tabbee ci weeru safari ba léegi ñu tàbbiwaat ak yéen ci jataay yi nga xam ne mooy jataay yi waxtaan ginnaaw ni ma koy waxee bernde euh, jëmm yi ñu tabbi nag ci bernde roox yi ndax lu am solo la ci màggal gi kon euh, moo waral jataay waxtaan yi nga xam ne li ñu ci jublu rek mooy nammaat pas-pas yi mooy fàttaliwaat euh, euh, le sens original de la célébration du grand magal de Touba noo ngi ziar bu baax fadilatu Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal sa borom mu yàggal koo fi lool te may ko wér te defal ko mboolem kilifa diine yi te defal ko mboolem réew mépp te def fi jàmm bi jaay Seydina Muhammad alayhi salaam di ziare eh, kilifa kër gi muy El Hadj Bougane Gueye Dany ak tamit eh, mboolem staff bi nga xam ne ñoo ne ci ginnaawam eh, di liggéey sëñ Pape Diène soxna moomee ak technicien yi. tey nag maa ngi am plateau boo xam ne yaakaar naa ne li ko gis bariwul dama dajale ñaari ténor koo xamante ni nii il est mondialement reconnu ñëpp xam nañu ko ci àdduna bi ci waxtaanam ci xam-xamam rafet waaye itam ci pédagogie am muy oustaz Alioune Sall oustaz maa ngi lay nuyu. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شي جاك مباك ما نغلي فين يو دي نوي نك سما خارت بيغا ما بولال دي سيرين خادم جي ليغا واخ ليغ سونو جاتاي بي سبيسيال لا مان امنا لوما شي فيرندل ما نكو نوي باخا باخ دي كا فاينال سون تيوفل تي موم ndax le 22 juillet 99 laa dem Sud FM. émission boobu fu njëkk am indicatif bi moom mii la tey la ñu door toog ci jotaay. allahu ah! waaw mboolem ñiy déglu émission boobu. ci alkitab bi mu jàngoon. waaw alkitab. Mhm. yoor yooru ajjuma. 9 ba midi moom mii moo def indicatif bi. te itam bët bu set ma partage ko loo xam ne du ma xam ñaata lay toll. ndax ni ko defee. ni ko riime ni mu ko yëkkatee loolu daal moom xam naa boo moytul bu fekkoon doon nañ def doon nañ def disque door ci ki yooyu xam naa war nga ci am disque d'or ñu ngi leen ndokkeel baax a baax di am mbégte ci jotaay bi nag di ñaan suñu borom mu defal ñu ci barkeeg tawfiix su guddee yàlla na am njëriñ su guddutul yàlla na am njëriñ amal nu njëriñ ñun ñu koy def amal leen njëriñ yéen ñu koy seetaan sant yàlla bu baax it bi nga xamee ne màggal def daan jot ñu doxe mbàkke ñëw doxe fi ñibbi màggal di jot ñuy dugg ci njaga njaay yeeg kaar yeeg njëmbat yi yëpp di ñëw ba mu yàgg màggal jot màggal jot ñu war Mercedes ñëw ba mu yàgg màggal jot ñu war kaat kaat ñëw li màggal jot màggal jot ñu naan ñu kaay leen toog ci plateau yi wax ci màggal gi loolu kay am na solo kat ak yokku la de jërëjëf <laughs> macha allah oustaz nuyoo bi am na solo lool euh, mu seq nag plateau bi ak koo xam ne wax naa ko léegi di am lu ko booleeg président Bocar mooy day njëmbatum Serigne Mbacke Mohamed Serigne Mbacke ko yar moo ko defal lépp teel ko boppam muy Serigne Khadim Gueye xasaayit ñëpp xam ko ci àdduna bërngal këpp ndax fenn fu ne dem na fa liggéeyal Serigne Touba ci xaside Cheikhul Khadim yi bi muy génn Serigne Mbacke di ko génnee bi mu njëkkee génn yaakaar naa 92 la loolu yàgg naa ak léegi fanweeri at la booba ci at yu néew ci la toll muy sama wala dama koy seetlu àdduna bépp fu ma ko lu mu xaat mu ñëw fekk si ma Serigne Khadim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 إن حبادي ليس لك عليهم سلطان أيس من الله هند جوالي إبليس إسناديت بيا ولي أيس من الله هند جوالي إبليس إسنا ديتو بيا ولي نفع لخير الله وخبل في الدري بأهل بجر اللسود كدري نفع لخير الله في النكارو كل أزل جره مكارو علمني الرحمن في سفينة بأنني خديم في المدينة برأني الله لدى كناكري من كل جالب إلى المناكري أصاب عن الله في كرم بسا خبل مبارسي وحني خلق Yeah. marché. Touba nga jëm oto boo fi seen fa la jëm. sawaaw ñun tamaa ilal jilaani. wintanaa li Ahmad Tijaani. moo xam bis ya nga seen la. bisu Cheikh Abdoul Xaadir Jilaani yi la. awintamaa li Ahmad Tijaani wala bis la nga xam mooy bis Tijaani yu ne yi. dëgg la bis yëpp ilaa dak ilaa ilaa. suba iskulluhum qatan ala sawaabi ñoom ñëpp ñu ngi ci copéage bi. dëgg la <laughs> waaye xam-xam waay. maanaam loolu. ci misaal. Mhm. lu ne moo ci biir. dëgg la. mooy nangu nangu sa mbaax. Mhm. nangu mbaaxug nit ñi mooy tax a dem. loolu sax ren euh, Oustaz euh, mooy thème mu màggal gi. mooy fraternité musulmane mooy boolo ummatu islam euh, ummatu sallallahu alayhi wa jeex na te su su loolu am boole xeet bi day daal di yomb mooy Moussa sunu borom daf koy yónni ci na mu ko man firaw na nga ma yoni mu ko ma yar deug la mu ko ak ni ma technique de communication mu ko la deug la ak ni ma ay tiaxabalam mu ko la de mel de da ñaar tankam ne ko rabbi sarah li sadri tay dama bëgg nga may ma dënd bo xamné lam baxlé duma ko xeeb lam baxlé dama koy nangu. dëgg la. xam nga firaw na ku ne xam na ne bandi la mais Moussa nangu na am na lu mu baax le dëgg la. doomu aadama nun lay mel maanaam nit ku baax day nangu la baax le ak li baax le. dëgg la wala nga nangu mbaaxu ñëpp ñëpp nangu la sax mbaax is kullu wirdin yuridul murida li xadratillaahi walan yahida dëgg oto bu départ dakaar dog péage bi romb génnukaay yi walan yaxiida amul benn génnukaay foo jëm ci dëkk bi rek ngay jëm si. dëgg la loolu ab jàngal la oustaz. ci am am solo l'islam mboolem sëñ Tuubaa sax na ko ci mbindam képp koo xam ne sama taalibe nga kuy wax laa ilaaha illallaah sayyidina Muhammadu rasulullaah bu ko noonu kon. nanu xam ne penku bi benn bi la. alxuraan ji benn la borom bi benn la tabaaraka taala te nag Sénégal gi doole turu su mag ñi fi andi mooy doole réew mi. kon nanu bokk ndey bokk bàyyi te xam ne al muslim xaqul muslim te nanu xam ne. انما المؤمن إخوة فأصله بين أخويكم سين خادم خانا نغا بيغالا تبوك تيلي سبيكتاتور يي شي خاسيد يي لاتو ماي استاذ علي مسال بسم الله الرحمن الرحيم قد قال موسى خادم الخديم إيه؟ لما الحوا تقدم الخديم عيني أنسى بكاسيني يوم خروج سيدنا الخديم تجزا وسكر من داره تدها بمكباري بئس خالق البرايا الباري خرجت يوم سبت سامن عشر لخدمة المختار في سار سفر taarix boobu junne ki ñetti téeméer ak fukki at ak yetti lim bi lee wóor su tey jii ma dellu yeete tey ndax ñi nalu seen xol dellu seeti ku réere day laaji ka xam lu mu xamul laaj leen mbiram ki leen amal kenn amul mm-hmm. gumbay jàccaar laa ngi tegeen ni wedam man ku xamul laajul ku xam xaw mow layam ku toppatul yàlla na toppi waayam mbaa ko dal buñ ko xul folaayam nan jéema topp yàlla toppi ndigalam te jéema daw seytaane xami dugalam te jéema roy roy lu rijaalu te jéema rey lu kulu jaani الخير في المختار المختار لا في الذي نفوسكم تختاروا قد جاءكم من الإله نور بمبا جاغو على سند نور بمبا جارك نوني الله جارا في البر والبار ونال دهرا سيدانا بني ak bakkan ak dunya ku leen fetal daanañoo noon yu bon yaa ban ba jaar ak ñoom jaadu nam si boobee sëriñ sangi kona fii ab si xaataltu fil bari la wax saytaana kab kabu xayral wara awtaana bu agaase ba xeex ca geer ba ñoroowul ak siwil keroog payoor ba wa man yuhaajir fi sabilillaahi mboot maa ko yóbbu foofu doona laay ma wax la waral màggal ga nga xam ni Seex Bamba réyal demam ga taarix ba xaama jëy sësin mooy at moo di lëlum sëriñ Basiru bég ma la yàlla defaloon kalima fii daarihi defal Ibrahima ba yàlla buur ba farataal tabaski ak tam xarit nee may na ko gaayi Mbakke bi xadimi lil maxdoomi fil baari faru leen ilaa tasimi la daa wesar ca bootu yoonu géej laay bëgg a way xam ni bàmbaay géej ga boo ko xamul yoreel ca saawu sa koor jawaab yu abdullaay loolu moo wóor ne dogon kono dem gi wolof nasaraanoo dem nirano mashallah dugal ko dem ji wala nasaraan to kon billahi ñepp di nirano oustaz fofu lay baye fofu lay baye rek mhm. nga dugg fi no no noko noko yegge rek noko sentir rek waaw xam nga mam musa Ka aha radiyallahu anhu pel bi ci xuru mbakke di jangal wala fi wolof bi muy jexal def ne dugg ko nag dem gi wolof nasaraanu gis nga wolof nasaraanu moo doon programme tubaab bi. wallaahi azim dëgg la. nasaraan yi si ñu ba ñun ñëpp ñu nekk ay nasaraan. loolu tax na comme ma xam nga ubbi nga daara dana ko jéem a fay. dëgg la gasteen dana ko jéem a sakk ku am dana ko jéem a tasaare moog ñoom moog ñoom ba xew nii xew. dëgg la. Euh, xaraj yow ma sabti thamini asar li xidmatil muxtaar. dëgg la kon xidmatul muxtaar mooy fexe ba njabootam gii tubaab bi bëgg a nasaraaniise mu dox diggante tubaab beeg njaboot gi ba njaboot gi du leen nasaraaniise. allahu akbar. mu ne kon dogoon ko nekk dem gii wala fu nasaraan. dëgg la. te loolu nag du nu jikkoon su boobaa. déedéet ndax sunu amutoon ni nga ko waxee ci tàmbali sunu mag ñii. nga xamni ñoy ñooy la yu diina ji ci penc mi kon boo moytuwut xawma lu ñu doon wa mën ñu ñaka doon li ñu doon. kon yaaka na duma tuddu tudd Cheikh Mbacke François laay tudd wala Paul. <laughs> deng nga. kon xasida gi mam mam maam Moussa Ka. ndeysaan. nim ko def. Mhm. nañu la daam mbesar. deug la. ci mboti yoni geej ga. la bëgg way ngeen xamne bambay geej géej gi. wesar mooy ni ñuy bindé lettre waaw moy prose. jeex na. Mhm. nas mu nak moy ñu nosé ko ba boo jëlee fii ak fi ñu tollo ñom ñaar. moy poésie. moy poésie. deug la. légui nak xolal ni ci saw sa kur tollu lepp nga def ko ci nas mu bobu té do dem ci benn beuyit fekk baad ya ëpp wala araf ya ëpp ma masqué ya manqué. deug la macha allah. xam-xam bi gëna a jëriñ ci ji dafa ci xam-xam yi. Mhm. ci la xam-xamu arut bok deug la. ah nga nga mën a réeme fukki bayit képp yoo xam ne départ beeg jeexantal bi dañu ànd soo jëloon tey nga ne xoqal bukaaw ala saadatin amwaati ñu ne waaw nga ne tabkil araadi alayhim ka samawaati gis nga fi nga waxe fii saati fi nga waxe fii waati dëgg la mooy rim yi rim yooyu mm-hmm. ci tubaab sa xaw naa yomb ah. la parce que tubaab mën naa riim riim yoo xam ne. du du ko toftale. dëgg la ah. Mhm. day day yëkkati baatam rek. dëgg la naan naan Mor Khoudia def naa ngam. <laughs> comme bu may way. ko <laughs> waaye waaye ci ci riim yi beeg yooyu. maam Moussa ko jël ko def ko tarannum bu mel noonu dafa am solo. Mhm. suñu xaadim nag yàlla def ko ci may. ndeysaan. mel <laughs> may na ko ci loolu kaar kaar. ndeysaan yàlla euh, laafaat de fuuka. ndeysaan. ndax. léeg-léeg mu yëkkatee ko noonu. Mhm. Eh, bu nuy jeexal sunu albidaaya. waaw. dafa am benn wolofal bu muy wax. hal fil wara. ndeysaan. man chakka àndal Moustapha warisal xadima. waaw te gis nga nu barkeelu ci. <laughs> gis nga. Uh-huh. yooyu. waaw. mag ñi sëñ mhm. sëñ Cheikh. daawa. daawa mooy woo nit ñi ci dara. Mhm. ñu wuy si dafa am ci Afrique nu ko africains yi soxlaa ba demee Asie dafa am ñoom nu ñu ko soxlaa. Mhm. ba demee Afghanistan dafa am nu ñu ko soxlaa. ñu ci nekk suñu borom def ne bil xikma rek yow yaay xam nag sa sa pencum bopp lan mooy xikma bi leen di waa mag ñi nag daa bokk ci li ñu wooxe nit ñi seen xasida yii nga xam ne mën nañ koo wax soo déggee daaj bi mu sori la yaay solal sa bopp saw daal la dem ca daaj ba ndax loolu jas bu muy def ci nit moom rek ko man dëgg la donc loolu mag ñi liggéey ci liggéey yu rëy rëy ba adduna ci yëpp wala boog réew meeg li ko wër lépp ñëw wuy si leen ñu wan leen li tax ñu leen doon woo daaja leen daaj yoo xam ni mën nañ caa toog te ab daaj kat baat bi li muy tekki daaj daaj boo boo wër boo amee aw fas da ngay daaj ab bant yeew ko ca bant ba muy gétt ba muy gétt ba su ko defee fas wi dana am sañ-sañu wër gétt bi waaye du am sañ-sañu romb daaj bi looloo dib daaj jërëjëf macha allah am na solo oustaz euh, jàngat bi nga def ci mbindum Serigne bi Serigne Bangoog allamani laa wala alima ma yashaau min ulum madabi xitna bi ko le musharrafan bi safadi waxaat na ne karamatu xatt yi di mais miracle demeure dans mes écrits Cheikhuna Ahmadou Bamba Ngoog genn góor genn góor borom Tuubaa ak Njaareem ki ànd ak tubaab yi juróom-ñetti at yu manqué tuuti waxu leen lu ma leen def waxu leen fu ngeen ma jëme waxu leen ma jéggale ma dafa àndoon yow ba mu jeex oustaz fu mu laay ñëwaate ci yow la muy métti métti wax na ne kem aaye suratul baqara daj na ko ci ay nattu waaye bu mu ñëwee dafa xam ne yàlla kat dafa wax ab jéggalaakoon la mu ne jéggal naa sama noon yi ñaan naa yàlla jéggal waaye yow ma si yàlla jéggal waaye jéggal naa ñëpp. وخنا يا مالك الملك يا من جل ان خبد ارحم جميع الورايا هدها ويمو تي دافنا عفو تو ان الاعداء ترن لي وجه امن نفاهم لخير سر من راسه نانغي غيس بيرسونال شيخ عمر بامبو سي اسبري دي ديباسمون موي نيت توغ نغا بانكو توغ واي نغا بالكو نيال يالا مو جيغال كو واو بالغا نغا تامبلي وون تي المبيوت في دكار دغلا اذا ذكرت ذلك المبيوت فوفل بالغا تامبلي وون دغلا نحن اذا ذكرت ذلك المبيوت wa dalika al amira wa thabuta taarat il jaaj bil armaay nafsi loo ca teg walakin saba anil maahi dëgg la du ma du ma nekk jawrin ci toolu yonent bi mu baali noonam may fa yonteeg samay noonu quelle personnalité dëgg la ah dëgg la te mooy rëy waayam ma ma seetaan barki démb suñ Muntaxa yàlla na ko yàlla yokku wér amin amin ya rabbi mu ne damaa bëgg a wuutu Dakar waxal ko ndeysaan xam nga moom tam al adibul arabi loolu daf ci xóot. dëgg la mu ne damaa bëgg a wuutu Dakar waxal Dakar. Mm-hmm. ci ci sunu dégg sunu waxi noonu. ne waaw. mu ne Dakar dafa amoon lu ko métti. ba fi sëñ bi fanaanee yaari guddeem ya. tey nag nee na na bi ñu ko sampalee misaalikul jinaan kon baale gaa nga tàmbali ca. fanaanum Dakar moomee saba anil maahi almaahi mi nga xam ne mooy yonent bi alayhi salaatu salaam nga xam ne li ko lépp ba leen di baal waxu leen baal naa leen fa antum attulaqa kuy wër kuñ baal bu ñëw ci yéen dëpp dëgg la dama leen topp dara léegi nag sëñ bi tam loolu mooy baale gi dëgg la ki lay def te mënulul dara nga war doy nay duma waaw dëgg la de am de. dëgg la de. danaay wax ñu may jàngalee ci daara ji. Mhm. tiim xale mukkulut nga yorub yar mu wóor ko sañ nga ko dóor boo ko dóoree niteetoo. ndeysaan oh tiim koo war a dóor mu wóor ko sañ nga ko dóor. Mhm. moo xam jabar la moo xam doom la moo xam ab taalibe la. nga sañ koo dóor ba mu wóor ko sañ nga ko dóor mën xool bëtu baal ma. wala dootuma ko def. wala yëg-yëgu baal ma dootuma ko def. la faar rek mooy teg yar bi rek duma ko ko. dëgg la loolu sëñ bi doxale seen diggante. macha allah diggante ak tubaab yi ñoom ñëpp ñu yëg ne. su ngeen defee la ngeen defoon nu defati. waaw la nu defoon bu ngeen deful du nu defati. tey macha allah jasaw sakkoor bi sëñ xaadim yëkkati la nga xam ne lu yéeme la ndax sëñ Tuubaa sëñ xaadim moom rek moo mas a bind péripul boppam wax fi mu jaar ku nekk archive da laa bindal sa ginnaaw mu bind histoire waaye sëñ Tuubaa rek moo bindal boppam fi mu jaar muy xasida gi nga tàmbalee mooy yaay su mi ndaw inde jéewali ak tamit euh, li nga xam ne wax nga ko muy euh, jawaa muy euh, jasaw sakkoor jawaa bu ta te sëriñ Moussa Ka andi ko léegi ma bëggoon na nga bëggalaat oustaz nag ñu ngi ci jotul émission bi nga bëggalaat bokk yi rek ci xasida Cheikhul Xaadim yi wala wala fal xam naa nag moom da dum bàyyi naa nag gaa yaa ngoog yaa ngoog bismillahi rahmani rahim ah plateau bi ala Touba na la in shakartum la azidannakum la in shakartum la azidannakum li rabbin karimin waa sin xayri mahbudi سكوري إلا داداري وفي البحر والبيد لرب كريم واسين خير محبودي سكوري إلا داداري وفي البحر والبيد إلهي حكيم الناس تعبيدي نفى حني الأحداث أترك وساخلي مرامي بلا كدم وديخ وتسديدي سكوري له بالخلق والجسم سرما بعد بالتوفيق فضلا وتسديدي خير مسمودي يا سالي يا كونيها دكم بقلبي بدادي بتسويه Xaadim euh, xasida yi neex na lool ñu ngi ziyaare bu baax soxna Astu Mbàkke bint Cheikh Mouhamadoul Moutada teraanga ji nga xam ne moom la ñu sol muy kaddu mu rafet mi moo ñu ko jox ñu ngi koy sant baax di ko ñaanal yàlla na ko yàlla dëgëral moom ak magam Serigne Mamour Cheikh Amadou Moutada nga moom fu mhm. euh, sa wëlëre ñu a baax a baax di sant moom Serigne mhm. ak Serigne Khadim euh, Mbacke Louga oustaz bëggoon naa nag laaj boo xam ne saa ma la dalalee ci màggal dinaa la ko laajaat ndax jamono da koy soxla fu ñu toll mhm. mooy ki nga xam ne dafa màggal si nan yan comportement wan melokaan la war a am su màggal see waaye itam bu jógee ci màggal gi dellu fa mu jóge woon ban jeexital la màggal si war a def ci moom. jërëjëf laaj bi am na solo jërëjëf Xaadim Gueye xasiide am na solo laaj bi am na solo lool. mooy sëriñ bi daa woote. taalibe bi guy si. la. bi taalib bi di wuj si nag bàyyi wuñ ko ci ne damay wuy rek dañ koo recadreel ni mu fi nekke buy dem li mu yóbbu. dëgg mu ne bu ngeen ñëwee na ngeen nekk ci njàngum alxuraan. muy li ci jiitu. te njàngum alxuraan xam nañ diggante sëñ beeg alxuraan. ci bëgg ci topp ci roy ci fonk. ndax yaa ngi dégg mu naan maasikan bil kitaabi maska dariri mhm. biyadil xaaidil bashiril muini tey raj rajloo bii ni mel bu ci silmaxa nekkoon dana am problème nga jàpp ci loxoom mu dégg ot yi di klaxonné xaw ma kuy rëcc waaye doomam déedéet <laughs> maska dariri loolu lay tekki biyadil xaaidil bashiril muin al xaaid mooy ki nga xam ne moo lay wammat ba circulation bi lu oto yi bari bari lu dëkk bari bari ndox doo doo jog ci ndox mi doo dal ci oto yi oto dal ci sa kaw. nee na alxuraan ki ci ñëpp nu la lay def ah. dëgg nga dégg fële min al xaq jaa al xaqu lil nga dégg fële lu ci nekk rek mu wan alxuraan ne bu nu yem ci ñëw rek nafar ko mu jeex. waaye nan ko jàng. te dund ko te dund ko. dëgg la ndax moom da koo jàng dund ko jàngal mag ñi yar leen ci ba daan waxante sax ci baat yoo xam ne lépp alxuraan lay doon lu lay benn. ndeysaan bu ñaar ba ñu jàng xasaayit xasida mooy li sëñ bi tibb ci alxuraan ji. dëgg la jox na ko. sëñ Xaadim mi ngi yëkkati léegi la in shakartum la waaw sëñ bi. <laughs> pàcc bii la ñuy wax waaye wala in kafartu moom comme jàpp na ne ñun du dugg foofa du dugg foofu. dëgg la. lu am solo la. ndeysaan. <laughs> xasida gi mi am rek la in shakartum la zidannakum ana wala in kafartum. tey sunu yoon newu ci. jeex na léegi kon jàng xasida fexe ba xasida yii nga xam ne day jàngale fiq di jàngale tawhid di jàngale ak bokk. Mhm. di jàngale ab yar di jàngale teggin. di jàngale lu ne xasee di jàngale ko. di julli ci yonent bi. ñu jàng ko. Mhm. danaa wax ba Mbàkke ne ko. Mhm. bi bi ne. wa maskani sallim minal fujaar yi. war na góor góorgóorlu ñoon ba nuñ nekk ay fujaar. waaw waaw dëgg la de. penc mi yàlla bu mu am ñu jubadi. ñu ne kaccet ñu ci. waaw waaw buñ ci bokk. <laughs> am déet. tey. waaw sallim minal fujaar ñu ne kon kaccet ñu ci. boo ñëwee ci li ci des muy ñetteel muy berndeel gan ñi gis nga sëñ Cheikh. Mbacké àdduna dafa bokk ci li ci gën a rëy. mooy joxe aw ñam. nee nañ te bax jumaa baax na. dëgg la waaye joxe aw ñam a ko gën. ndax bala ngaa dem ca jumaa ja da am loolu lekk mën na taxaw. dëgg moo tax joxe aw ñam ci la Seydina Aliou ak njabootam ga Amon fawaqahum law sara sarra daalika al-yawmi amee ca wa laaqaahum nadratan wa surura amee ca wa jazaahum bimaa sabaru jannatun wa harira yoy yeb ñu ko amee won ci joxe aw ñam te fekk dañu bëgg ñam ba motax tax gi ba ñëw fii ci dëkk bi loolu bu ñu ko ñëwé ci dëkk bi nak di ñibbi nan yobali bëgg alquran ben ku bëggoon na ko yokk yóbbaale bëgg ghazida dëgg la oustaz bëggoon naa bala ngaa ñëw ci li ñuy yóbbaale ki màggal si ni mu war a comporté woo ndax da gis ñoo xam ne dañuy taxaw ci jumaa ji nekk fa di snap wala ñuy photo maa ngi ci Tuubaa màggal validé wala nga ñëw sol colul gu dang wala nga yokk sa kara wala nga rocc sa yaram ba mel ne naar bët yooyu itam bëggoon naa nga soñño ci daal loolu day kera ba <laughs> ba sëñ ba ne ayes mindilaaw inde jeewali iblisa isna day tuhu lan war na góorgóorlu nun tam ah? mhm. ki ñëw am ruuxu dama bëgg a si téléphone bëgg a yàq sa sa si. dëgg la. boo xamoon li xew doo ko def. allahu akbar dëgg ah. Mhm. jumaa ji nga ñëw gis ko ni mel. nga ne léegi naa wan nit ñi ne ñëw naa ci naa wan nit ñi man ñëw naa ci jumaa ji naa leen wan ne dugg naa ci biir naa leen wan nangam loo koy wane sa téléphone nga jël. mën naa am loola indi la loo xam ne concentration bi nga defoon day. teewlu nga nga bi nga mën a war a teewul dëgg sax doo ko mën. sëñ Cheikh. Mbacké. dañu ne ci jàkk sax di julli. tey. téléphone nit sonné ci biir. sëñ Xaadim kooku boo xamoon li téléphone yàq ci moom ci bés boobu. parce que da koo déconnecté. dëgg la ndeysaan tey. <laughs> waaw. Mm-hmm. maanaam tey da toog fii. bugaan bëgg laa woo. dëgg la. fekk maa ngi lay woo wala yaa may woo lan la téléphone wax bugaan ki ngay jokkool. ma ngay jokkoo keneen. ma ngay jokkoo keneen. dëgg la négal tuuti mu jël la. waaw négal tuuti mu jël la ngay néeg kañ lay pare julli cinq minutes wala dix. nga nekk ci am lu la déconnecté bala ngaa connecté waat ñu sëlmal. waaw. man kon su ma doon màggal si ma ñëw ci dëkk bi nga xam ne connecté naa du ma nanguñ. ñu may déconnecté. dëgg la du dëgg. Mhm. moo tax mag ñi commencé dëggmal sunu borom gestu du tax du ko def. dëgg la na du doo def métti métti du doo ko yëg lu tax caf ko gee nga dëggmal mooy li nga doon wut. boo ñemee kaf ak yàlla dara doo saf. jeex na waaye soo ñëwee ci jëkk bi bëgg a wane ne li ma sol. nangam <laughs> bu ngoonee ma summi ko solowaat. suma sol gu nekk danaa ko fotow ah. li bernde yi li may ndëkkee ma filmer ko yónnee gars waaw li may añee ma yónnee leen ko. boisson bi sax bu ñëwee nga yónnee te ah kii gis li ngay lekk te ñamu ca kii gis li ngay lekk te ñamu ca. ndax xam nga kum doon ndax xam nga lu muy wax. dëgg la ndax xam nga lum man tey nit dana romb lu bëgg te ñamu ca loola def jeexantal ci doom ji mu ëmb. wallaahi ñëpp ko gis. dëgg la. li ñuy wax li ñuy wax doom ji dafa lakk. lu mu lakkee yaay ma romboon lu mu bëgg te amu ca. waaw su fekkee li ñu aññe lépp mi ngi ci internet bi. allahu akbar. li ñu reer lépp mi ngi ci. sàmbeen yeeg mbayeen yi déglu leen baax. li ñuy ndekkee yëpp mi ngi ci. te kii daal romb mboq wu ñuy lakk képp. mu bëgg ca mboq wa amu ca. doom ja juddu am ab lakk-lakk mboq. sëñ Xaadim loolu bàyyi xel lool. dëgg rek sunu téléphone yi. ak nangam yi tey kuy dugg palais dañu nangu sa téléphone dañu nangu sa téléphone. am déet. waaw am na fa centre boo xam ne boo ñëw bàyyi fi téléphone lañ la waa léegi nga am kilifa goog ci àdduna kilifa ak àdduna la la. Mhm. ñoo la bul dugg fii di yor sa téléphone. waa léegi kilifa gi nga xam ne moom dafa yilif la yilif kooku moom sa digganteeg moom téléphone ngay bàyyi mu ko yàq. wax dëgg yàlla. dimbali. macha allah euh, euh, Gina loolu moy comportement ki wara a màggal si nag waaye léegi nag boo màggal ba ñibbi nak lan la jeexiti bis bi nga demone muy bisu jaamu bi yalla bu nangum jaamu doon sant yalla jeexita la ci tuba màggal yi. xam nga sank ya ngi sef sa telephone bi. waaw rof ko fe ci courant ba. Mhm. lo ci beggon da bu mu sarse jeexna na. ki magal ci dafa sarse si. ci jikko yi rafet ci dekk bi. dekk la. beugante gi ci dekk bi. xam-xam bi ci dekk bi. beug liggéey bi ci dekk bi. teralante bi ci dëkk bi léegi ci loolu nga ñëw rechargé wu ci ba fees waaye booy demee nekkal ak loola. dëgg la balaa sa charge bi di déchargé wu ci douze mois yi fukki weer ak ñaar incha allah ca ca ca màggalu déwén bu la fi fekkee fekk na yow sa batterie wàccagut boo ñëwee da ngay da rek. am déet yooyu moo tax kon soo ñëwee ba jël ci yu mel noonu mhm. boo demee nanga koy sàmm nag dëgg la la ko may seetaane ngaa bu gi la lay kar <laughs> loo màggali mu jël ko <laughs> kon doo sori sax booy génn mu lay kar ngaa bu gi la lay kar ngaa bu soriwut na boo boo demoon tey fa ñuy jeexale péage bi di génn waaw nga ne taxaw leen Mor Seck mu ne nga ne ko taxawal fi màggali woon nga waaw ana na koy loo fa def <laughs> loo fa jële bul yem ci màggal ga neex na lekk ya doy na ah ah sëñ bi muy woote dafa bëgg ku ñëw ci nun am ay comportement am ay changement boo delloo ca kër ga xam ne da ngaa ñëwoon sëñ Cheikh Mbacké muus dafa mas a aji màkk muus men muus men euh, ajam googu bi mu ñibbisee dëkkandoo yëpp dañ sol na kaalaam mbax na makka mi ngi séddale sandarma mi ngi séddale zam-zam di nettali tukki bi. ndeysaan. loolu fi janax. <laughs> ñu def délégation seeti ko ne ko yow yéen. lu tax ñëpp ziyaare mu leen yéen muus avant makka pendant makka après makka égal muus. <laughs> jikko ji di soppiku. mu ne mu waat waat na leen jikkoy Muusa moom wóor na ma ne. dem màkk changé wu ko. allahu akbar. waaye sëñ Cheikh. ok nu toogee nii Muusa dafa toog rek seen janax na le mook mook jabar ji. ndax nee nañ doom yéen bu leen ñëw. waaw. bi mu la séenee rek mbaxana maak metteel gaak zam-zam lépp la ramassé rek wuti ko. gis nga loolu li léeb woowu mm-hmm. mooy képp ku ñëw ci ndaje yi boo ñëwee bàyyil xel muus mii. mu changé wut. déedéet. aji na Makka tawaaf na wër na Kaaba ga sànni na. waaye égal muus. yàlla bu ñu dal ci sunu aji sunu sunu màggal yi. sunu gàmm yi. sunu ziyaar yi. sunu ndaje yi. lu ci nekk rek bu demee yàlla nañ ci tibbe loo xam ne day yokkuwaat ci defaraat sunu jikko. amiin waat ci defaraat sunu toogaay. bu ko defee bu ñu ñëwaatee tibbuwaat. yokkute lañ amoon. macha allah jërëjëf sëñ Cheikh. sëñ Xaadim mel na ni émission bi biñ ci catli xam naa nga yëkkati rek ay baati xasida boo pare tàggatoo ak ñi nga xam ne ñooy seetaan la Sen TV. Cheikh Moussa Wa santal dab cant yaa fi gën amul ku lay werante te kangaayoo ci Moustapha te dal nelaw yaa Moustapha ñëpp mokk nañ أبو الحج بلاي خيراتي لون أنت مستوى ولا يا ريم يا قرم خاص بمستوى محمد عبد الله أخني بمستوى ينا خير أني ما نزيد كي يفوقنا سبو كني سين كمي ساكن كمستوى ينا جبر ينا خاتم ينا لخصوص yalax nañu seen xam-xam ya far toppi mustawa sigil déwéy te wa madru yi tuub nañ ci yow bu wér tabul faale ka wuy see ka far jekki mustawa su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni wiiw daya wat ña daawoo te ña daawaate mustawa ñi ngay woon sikki sakkareere Cheikh Abdou Moustapha ci waaw ba ci waaw ba ci woowoo nga tollu tey ku ñëw ree dayaa doon Moustapha wolof nee na woote bi gën bu nit di def defoo kenn deful yàllaay borom kun fa Moustapha waraf nee na ko am xel na mu dem telefaan am xel na ànd xelam dem ji mu la Seex Bàmba noon waa réew mi yàlla ma wooteloo daf na toog nan la ñëw nan di jaayikum tasalaawu dootu nu delluwel nan ci mu ganaar a nenam yaag siqiyaa cuuje kulluhum borom ka bu baa moom lépp naaw tal lu mu sabaa siqu sabaa bi may mujj saatam fadilam ñoo koy waxal wa kalama rabbul harsi Muusa bi mu sabaa lu ji jaaga bambaay njaag te mujjin fa mu sabaa ku fa yindoon ji war naa liggéey yàlla si Moustapha. waaw kooku nee na ku mer ndax naa la ku dem jëli naa la lu ma am bokkook ñoom lu ñu am ma bàyyi leen ko ku ma tooñ ma jéggal la Cheikh Modou Moustapha mu njëkku Serigne Touba en 1927 ba fondement jumaa ji 1932. moo indi Cheikh Bamba ci biir jumaa ji moo indi raay bi Touba mbokk ni soxna leen ma ci raay bi dégg Moustapha Aminata Baara Aminata Aminata Lo Xarit Maam Diop Aminata Sel Bëgg Saxoor Fatma maami Cheikh Modou mu sëñ Mbacke Mouhamed sama sëriñ sëñ Xaadim kàddu yi nga xam ne moom ngay tàggoo rek laata ñu yëkkat jotaay man tey damaa bég lool ndeysaan wéruma sax ndax damaa soj soj mu méttee lay ndeysaan li oustaz yi waxtaan yëpp gis nga ma musuwaar yi du teggeeku waaye oustaz kii day sama xarit di sama doomi ndey man naa la wax noo bokk ndey ak baay baayam sama baaya yaayam sama yaay la woon di sama xarit la ay rakam yëpp dañ maa def ni moom fu ma fekk naa ko fa fu ma masa fekk na ma fa bi may génn nii saal baa nga fees dell kay kii dama ko mënta bët bët mënuma koo bët fen dëgg la muy kenn ci man ma la koy seereel waaye Cheikh Mbacke mhm. maa ngi lay wax ni loo ma ma sa defal mu neex ma. lii ma ci gën a neex tey. ndeysaan kii nga ma booleel. dama koo bëgg sama xol bii. ndeysaan lool. ndeysaan bi ma ko séenee coono bu ma amoon dafa wàcc. dëgg la ndeysaan. bu ma ko fekkul woon mu toog dama koy laxasu rek. tey bu ma ko fekkul woon mu toog siis bi. boo ko fekkoon mu taxaw rek dama koy katamu. ndax cofeel gi ma am ci moom. ndeysaan jërëjëf. ah kon xam naa ni. lool sopp na ma waaye maa ko gën a sopp ndeysaan dëgg la kay lool maa ngi koy ñaanal nag fenu gudd lool amiin yaa rabbi mu wér lool amiin yaa rabbi yàlla bàyyi ko fi ba mu soob ko amiin yàlla yeggale xam-xamam bii ni mu ko bëggee amiin nit ku baax ngi nii ku ñàkk ñaan ngi ndeysaan nit ku woyof a ngi nii ku modeste wallaay asi fu ma ko xam ne xam-xamam ku ne mën na cee jariñ dëgg la ku ne mhm. ba ci xale yu ndaw yi mën nañu jariñ ci moom ñi ko bëgg te gis ñu ko ñoo ëpp ñi ko ñi ko ñi ko gis mas naa ko dab ci autoroute bi mhm. di dawal mu yore benn parado du xam naa ni dina ko xam. benn oto parado. waaw Toyota mu yor waaw parado di ko dawal. Mm-hmm. ma langa moom di ko tàllal loxo ba bëgg dal ci kaw ci beneen kii bi. di ko gestu di ko tàllal rek seenu ma sax. ndeysaan ndeysaan waaw ngir cofeel gi ma am ci moom. dëgg la kon Oustaz maa ngi lay siyaar bu baax. di la ndokkeel ci màggal gi jërëjëf di feddali sama cofeel ci yow. jërëjëf di fasanteeg yow nag wëllëre woo xam. incha allah yàlla samal ba ca kanam incha allah du bokk ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha mu yàgg fi amiin te am wér lool <laughs> waaw yéenam ci sëñ Tuubaa yàlla na ko yeggale amiin yaa rabbal aalamiin sagal nanu lool fonk la lool nag sagal nanu lool dëgg la Cheikh Mouhamadoul Mountakha sagal nanu dëgg la ci lislaam bi sagal nanu ci yoonu maamam wi dëgg la dañuy tiitaru ci moom wallaahi al ngir ni mu mel ak ni mu def boppam lislaam jamu ko déedéet kenn yabu ko mhm. nu mu war a def rek def na ko dëgg la sëñ ñaan ci yàlla mooy mu bàyyi ko fa mu ba doon kéemtaan. amiin amiin amiin amiin yaa rabbi sant naa ñëpp Cheikh maa ngi gërëm ñëpp. Ah, maa ngi nag am na am na bokk yu woote léegi ku mel ne sëñ Abdou Ahad bu sa maram. Hmm. nee ñaari abyaat ci ci boromam ma munta ñàkk. nee na daal ñu ngi koy dagaan. maa ngi maa ngi ñaanal sëñ Moustapha Mbacke Mouhamed mii. sunu sëriñ sunu mag sunu xarit. di di wuutaa ko nu sëñ Mbacke soxla loo. di nit ku baax. Hmm. ku mën a jaamu yàlla. dëgg la nit ku doylu. dëgg la ku téye boppam. yilif borom kër gi mooy sëriñu bogaan. kenn yebu ko dëgg la di nit koo xam ni moo modeste gi may wax ci sëñ bi moo ne ci moom. dëgg la foo ko fekk fu wala fu mu la fekk mi ngi lay yaatal ci boppam. mi ngi lay dugal ci boppam. dëgg la mi ngi xootal boppam ci yow ngir nga ñeme ko. ndeysaan di kilifa gu mat kilifa. te maa ngi yow bokk ko. walaay. ñi ngi koy ñaanal yàlla yàlla guddal fanam amiin yaa rabbi kum bokkal sëñ moo Mbacke amiin yaa rabbi amiin tey jii këram laay fanaanee jàng walaay ndeysaan muy kër sëñ Mbacke soxna loo gii ci boori jumaa ji mhm. sëñ Abdoulahat Marème mi ngay wax. sama xarita. ndeysaan nee na faaw nga may ko tuuti ci boromam. noo ànd maak moom Brésil. ak Argentine. ndeysaan doon liggéeyal sëñ Touba ci liggéeyu. muxadimatul xidma bii di daayira muxadimatul xidma. maa ngi solo ci koor gi fii. safar 18 ren jii rek. Mhm. maa ngi moom daje nañu Espagne. kon maa ngi koy siyaar bu baax. ndeysaan ak waa Touba yëpp. waaw jërë ngeen jëf. ah nee na nga may ko ñaari abyaati boromam bala maa ñëw ci oustaz muy tëj. <laughs> Cheikh Mbacke yow tàggoog yow yombut ah, sa maram moo ko demandé de. ba tey kenn jaaragul fa mu jaar boromam eh. ña xam yàlla waak ña xam yonen ca ca baawoon ba tey kenn jaaragul fa mu jaar boromam te wax ji moo ko wax ba ko doona yóbboo ku dingal wax ji moo juyoo boromam ci gi jëla làmbe yàlla ba fekk muy géej mu tam si léeri xëy naan boromam ci gi jëla dàqee seytaane ki gaayam bu ñuy maaj muy taxaw faratay boromam jëggee jala moomi bootum kun ci baatin bu noon ba fa bee kanoom mu ni kun boromam ci gi jala tijjee ndambi xam-xam ba faf yor aliway xalim ak boromam ba àgg ci yàlla àgg ci ngën ji yonnen ñu soppi ko soppi léppam muy boromam saxal foofee jaari bakkan caay at di boole tagga juleeg weetal boroomam ba faf seey mel ni suukar far ci yonen di moom muy moom ci baatin cëy boroomam ñu bokk ko fal tofal ko ngërëm mu fab kun ñu jox ko mu jox boroomam di kenn ku ñëpp xam foofee ci baatin tubaab ya di bañ sëriñ sëriñ yéen mu faf di janti tiim jëpp duniyaa di taalif téere yi sellal boroomam malaaka seerapal ga moom fa diiwaan muy fal ay xutbuy dee boroomam balaa la fa am ci béy ar ñu di soog daan te mooy jaasi wutaatu yonen far ci kaw suuf jumbootum ko ci lépp lu soog boromam mu làq ngërëm ci saayir ak ci baatin maqaamam faw xam mboolem ñooñ boromam Sëriñ maanaam dex ku dem duy ku soobu ni mes bu génnee xam boromam ku bëgg di mbermelay bàmbaay gi seetal ku mel ni danay xëpp boroomam waaw su bëgg numéro meloy Bamba ji yàlla na ko yàlla fayal cheikhuna ahmadou bamba xaadimal moustapha borom wallahu yansuru nii wala xalqu tatbahu nii fil bari wal bahri sa naf in bila dararin suñu borom dimbali na ma bi ne fi topp nañu ma ci géej ak ci jëriñ may njëriñ lu àndul ak lor oustaz njëriñ lu àndul ak lor dafa rek moo koy xam te doo ko topp ma bëggoon nag fi may tëjee fi ngay tàggatoo nga ñëwoon lu ci kii nga xam ne damay wax ne ñaanuk Serigne Touba daa nangu ci moom muy Cheikh Mouhamadoul Mountakha al xalifatul am Serigne Touba fa ñaanoon wa hablana dhurriyatan tudimu alhamala saliha ya khadimu wa dhurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyal mustafa tajtahidu nga ñëwal rek ci ñaan googu ni mu nangoo ci jëmm ji nga xam ne tey mooy jëmmu cheikhun al khadim jërëjëf jërëjëf xaadim Khadim oustaz mbégte moo am am nañ mbégte mu tol noonu yàlla dogal nu bokkub xarit mu boole nu bi may ñëw xamoon ne yaa ngi ñëw. waxuma ko yow la. waaye bi ma la bi ma toogee fii mu ne xaadim gee ma ne ko menn. waaw waaw <laughs> ma waaw. ndax xam nga ñun comme ay ay artistes yi eh, littérature arabe lañu. ab daaj daf ñuy neex. xasida daf ñuy neex. rawatina kuy tudd araf yi nim ko war a tuddee. miisaan yi beeg yëkkati beeg daaj bi loolu ku ne neexut xamuli xew. dëgg la. ku ne neexut <laughs> xamuli xew. dëgg la. moo tax am nañ ci te lool. ndeysaan. sàllaaw fi ne suñu demee ca sunu jataay bële boo may tuut Oustaz Alioune Mbaye Mbàkke si la. waaw ah. jombul ñu ñeexee ma sunu jataay bii. <laughs> ndeysaan ci ak dégg ah. li tax way wolof nag te waroon di yaaram. Mhm. maam Moussa Ka nee na. Mhm. damaa nar gaañ jàngul xam boroomam. dëgg la. loolooy jataay bi. dëgg la. Cheikh nag ñoo ngi koy ñaanal ñun ñëpp. amiin. ndax nun ñuy wooye ay jàngalekat ak jàngkat ak nab nabi day mhm. lii mu final bu àggee dana am solo lool dolli ci li fa amoon solo ci benc bi. tey yàlla ko àggale mbakki. amiin te it yàlla baaxee ko mu kaar kaar bokk ci ñi ñu defar bañ defaru amiin ndax borom Minanul Baaxil Xadim maamam ji. Cheikh Mahamad Ba wajuram Cheikh Amadou Bachir. wajuram bi mu bindee téereem boobu daf caa wane alaama ci sil yaqin. mooy sunu borom ku ko dëgmal dala wax sooy bi wani dana la dóor mbéj dana la dóor ci bopp dana la wéq dana la bëmax waaye soo tee wàññeeku rek tëx a dëpp tëx a toog day mu jàgg rek mu yëg ne ñëw nga. li ci teg lépp nag ay xéwal ak teraanga doon. dëgg la noo ko ñaal suñu Muntaxa mi. amiin wax dëgg yàlla daal mu ngi noonu junj nañu ko am xel. dëgg ndax ci wàllu social. Mhm. ci wàllu économie. ci wàllu taxawaay. Mhm. ci wàllu tarbiya. dégg nañ ko fii benn bis mu nee mhm. ci cérémonie bi. ndeysaan. nanu jàppale sëriñ bi ci sunu bopp. dëgg la. nan jàppale sëriñ bi ci sunu bopp. dëgg la. dégg nañ fa wax benn bis mu ne xool leen ci man. dëgg la. yooyu nag defaru geeg bëgg nu defaru loo rek ko waral. ndeysaan. ñoo koy ñaanal naal yàlla na àgg. amiin yaa rabbi. naalaat yeneen naal. amiin. mbégteem lislaam bi yëpp la. dëgg la. mas fi am benn xew-xew mu àddu ca keroog ñun ñëpp ànd yendu ci fii. benn xew ci penc bi ba ca àddoo nun ñëpp taal si oto ñëw yendu si fii kër gi. dëgg la. lu tax ndax taxawaay booba nun mënuñu ko saa wóoto. dëgg la moom rek ca mën a taxaw. kon noo koy ñaanal loolu di ko ñaanal yàlla nañu bokk fekke doon ñun ñëpp. amiin yaa rabbi màggal si waat te kenn bañ a manqué. ñu ngi lay jaajëfal. jërëjëf ni fi suñu xaadim jaar lay jaar. ndeysaan ndax danoo bokk yaay. wulaay ndeysaan wulaay. danoo bokk yaay ndax sunu waxtaan woon ca Bergamo. waaw ca Italie ndeysaan ca Italie ndeysaan ba soxna si jóg di jël micro ba li may wax xam. moo ko dal. walaay ndeysaan ak si jël kàddu ga wax fa baat yoo xam ne sedd na mboolem xolu ko fa nekk ndax xam nga lay tawhid ndax suñu Cheikh. Mbacké yonent bi daa wax ne. sallallahu alayhi wa sallam. am na ñoo xam ne dañu dugg aljanna ñu ne loolu tax a dugal ñu ne ñoom xamoon nañ ne mocc dagan na xamoon nañ ko. dëgg la waaye amoon nañ tawhid ba tax daawuñu ko def. kon bu soxna si taxawee jël micro ci suñu conférence. buñ doon wax ci lislaam ak jabar tax mu bàyyi fa maa ko addiyaale sama yaay. <laughs> tax mu bàyyi fa tax mu bàyyi fa lépp daan ni man ci sama bopp de fii ma des ci dund gi. Saalum Sall mu ne mu ne ma dootoo ma dégg mukk ma ne sukk naa ci kanam kuy jabaraan maa mu joxe xaawa ki nangam. noonu la ko defee ne ma ne ko bàjjan texe ga. noonu la ko defee ba ni yàlla ñu yàlla doole yërmande amiin yaa ngi jaajëfal ñëpp di leen masa bu baax a baax maa ngi ànd ak sunu tu tànk yi ñoom Mor Sekum Jogo moo ñu nekkal fële ca dëkk bi ñu wax Cheikh Xaay ak sunu mbokku Omar Dramé moo jiite suñu zone yi nga xam ne moom lañ tasaare ci dëkk ba ak sunu mbokku Omar Dra Omar moom bi nga xam ne moo yor euh, communication mm-hmm. jataay bi am na solo yàlla nañu ko yàgg jataay da noo yéenu tuyaaba nag moo tax nga woonu ndeysaan noo yéenu tuyaaba ndax bi sëñ bi wootee nu ñëw nu ñu wuy si mm-hmm. nga ne nu wax leen ci fam leen seen du ñu xorom def ci wala xamba leen taal ba def ni def leen ci mat loolu kat kuñ ci woo suñu xaadim xale yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara salaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu ah jërëjëf oustaz alin Sall maa ngi lay sant di la gërëm di ko seetaan àdduna bi yëpp ndax seen TV àdduna yëpp ñoo koy seetaan fu ñu la wooyee nga ñëw loo xat-xat bii yaakaar naa mooy sunu ñetti jotaay ñetteelu jotaayu màggal ci ñetteel yi ma nekk seen TV yàlla na la yàlla fay yàlla na yàlla gën a guddal sa fan loo am yéen liggéeyal ko diine daal yàlla na la ko yàlla defal ci barkeb Cheikhuna Ahmadul Khadim euh, nu ngi lay sant di la gërëm di la bége sëñ Khadim yow moom matuma jow seere ndax yaay man maay yow fu ma la woo lu mu xat-xat nga ñëw ndax xam nga ni bi dëkk bi ak tolluwaay bi nga fi toll bàyyi sa kër ci bisu màggal ñëw te at mu ne bu ma ko sàkkoo jow nga def ko ku du sant sant yàlla kon maa ngi lay seere sama sant ak fedd sama kóllëre ak yow diko ko borom tayf mi nga xamné mom lañu bolé di sant bu baax ñi nga xamné wax dëgg yàlla ñoom la ñu euh, ñuy wa suñuy techniciens les ces gens de l'ombre je les appelle les invisibles qui nous rendent visibles ñi nga xamné ne kenn du leen gis waye bu ñu gisee ñoo tax ak xam la direction ak ñi nga xamné ño and ak ñom suuf légui muy waa maison mère ndeysaan euh, ki nga xam ne xadi ca am taal ndeysaan ak euh, Mbaye oustaz ndaysan Pape Ablaye Lam Pape Ablaye Mbaye père les techniciens Formose euh, Pape Diène sunu directeur de production El Bogan, Waitem Dissant, itam di Omar Baaw di Koubach, ku baax yàlla na ko di Serigne Moussa Mbake, moom Serigne Cheikh Fatma ak docteur Aminata Diop di ñu top jam jamono ju ne sunu Kharit Mahmadan Diop soxna Mominatou Kébé. fu nu toll danañ ko sant plateau bu nu yëg danañ ko sant ndax nit bu fekkee dafa dëkkal ci de la teraanga te mënoo koo fay man nga foo toll di bañu xam ne sant nga ko yàlla na yàlla dolli tilagaam nday soxna jëng wala jab jëng mu sobri ak rakam Cheikh Mbacke ñoom ñëpp ñu leen di ziyaare bu baax a baax di sant mboolem koo xam ne yaa ngi bigi sunu jëmm ju xeebu ji Pape Fall ami boutique ñu ngi koy sant ak njabootam sunu wujju Cheikh Abou Baraka Fadil heure bi daa dof noo woo bi ne wala màggal jox nu mbubum boppam ni médaille Serigne Touba la kon noonu maa ngi sant yàlla di sant njabootu Serigne Touba gi di leen ñaanal ñi ci faatu yàlla na yàlla yërëm leen te jéggal leen yàlla bu ci kenn faatuwaat ni ñëpp dem ci jàmm nu teewaat ko déwén wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu absa wa safar salaatu lazi fi فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مؤمن عن نعم النفر هديت عن المولى صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني على ما هي النار Pour une carrière passionnante dans l'industrie automobile, faites le bon choix de formation. Perform, l'école de l'automobile, vous offre des formations en CAP, BEP, BT, en mécanique automobile. Un excellent choix d'orientation pour les niveaux 5e, 4e, 3e, seconde et terminale.

kijk, kijk, for. Gam, come, doe es. Gam, come, doe es. Gam, gam, doe es. N'hésitez pas à vous renseigner. Téléphone 78 152 60 60 ou 33 867 26 06. Les grandes entreprises nous font confiance et recrutent chez nous. Perform, l'école de l'automobile.